provenir maintenant c'est au titre <laughs> par rapport à l'Assemblée je crois que Sénégal il faudrait que ñun ñëpp ñu toog xoolaat suñu bopp mm-hmm. nous aimons trop débattre nous aimons trop dire des choses yu ñu maîtriser wu mm-hmm. parce que tout est fait à une cause dama suivre président muy bi muy recevoir les maires mm-hmm. il a dit bi mu fi nekkee man j'ai fait onze ans douze ans j'ai organiser organisé onze élections ça coûte cher à l'État. Mmh. les meilleures formules possibles pour éviter sa moom ci gàtt ci al ci ci ci ci ci ci ci ci yéen yéeneen am na lu mu def. est-ce une anomalie ou bien est-ce une opportunité. Mmh. c'est une question que le député de trancher. J'ai dit hier. ci benn plateau télé que en vérité ce débat là ne valait pas la peine parce que trois projets de loi la ñu andi la dissolution sur la de l'Assemblée nationale c'est c'est un projet il n'est pas dit que bu paree nii day day dissoudre assemblée mënu ko il a les mains liées hmm. même bu doon def le projet de dissolution c'est au mois de décembre la ko mun def parce qu'on te dit 60 jours au au au au au au moins. 90 au plus. benn man peut-être ni ma xalaatee c'était pour permettre au président prochain président que du xaarati ba mois d'octobre pour organiser des élections législatives. day dissoudre pour commencer travail parce que le problème qui se c'est que bu ñu bàyyi nii le prochain président il sera sous la sous la sous le dictat de l'Assemblée nationale. jusqu'au mois d'octobre prochain c'est-à-dire que les vraies questions ñun on les pose pas ku ne da ngay xool yow fi nga positionné wu position bi nga nekk ngay wax mhm. te loolu mooy yàq Sénégal nii mhm. parce que le président il sera élu au, au il sera installé le 2 avril le dañ la ne deux mois deux ans 4 juillet lay pare mais 4 mois la 2 ans 2 2 ans 4 mois. oui c'est au mois de septembre donc octobre lay doon. septembre octobre non juillet bi octobre septembre. juillet bi lay lay lay am donc en tout cas septembre octobre lay doon hmm. mais durant tout ce temps il va négocier avec l'Assemblée nationale. il va négocier avec l'Assemblée nationale parce que xamuñ kan mooy prochain président xamuñ fu muy jógee y a problème. bu nekkee ci ñun la il sera obligé de négocier bu nekkee ci ñoom la ils seront obligés de négocier avec nous mais ce débat là personne n'en parle léegi nag il y a trois groupes constitués à l'Assemblée nationale plus les non inscrits mais groupe bu nekk da nga war a waxtaan parce que projet boo ko jotee da ngeen waxtaan xool une position il pour diir oui il pour dire oui mais avec des amendements qui vont encadrer la loi il y avait daal une possibilité pour dire non les trois groupes dafa am li ñuy wax solidarité de groupe les présidents doivent se réunir régulièrement pour échanger autour de ces questions ils l'ont fait ils l'ont retiré alhamdulilah ñëpp tranquille parce que coow li li ñuy di ragal mais le vrai débat les gens ne l'ont pas posé bu ñu ko retiré coow la ñuy bañ parce que Sénégal bindoo na noo xam léegi coow daf ñu yomb te des fois dañuy coow ci loo xam ne jaru ko. mais mais vous pensez que comme ça aurait pu être une bonne chose de voter ça. je dis que si les gens xam nga tey. Mhm. état bi fu ma leen di fu may déplorer c' est que c' est que la cellule de com du gouvernement ou bien de de la présidence en amont. Mm -hmm. devait parler aux Sénégalais sur la sur cette loi. wax concrètement quel est l'objectif qui est visé mm-hmm. su nekkee c'est le simple plaisir de dissoudre pour dissoudre ça ne vaut la peine mm-hmm. moo tax hier j'ai dit avant li li am j'ai ci plateau bi ne ko possibilité de retrait mm-hmm. y possibilité de retrait am na te la ma am na possibilité amendement am na possibilité aussi voter non yooyu yëpp am na mais alhamdulilah bi consensus amee ba loolu am ñu teg ko boor mais damay ñaan yàlla damay ñaan Sénégal que ñu ñoo nekkoon la référence en Afrique et aujourd'hui ñi ñi dañuy reetaan sur beaucoup de questions parce que dañuy focaliser sur des questions yoo xam ne amul